salaamaaleykum. Serigne Modou Kara ñetti fan la appal boppam ngir jële tawati coronavirus ci réewum Sénégal nee na balaa muy dem bitim réew da koo bëgg saafara fii ci réew mi état bu Sénégal benn hélico la leen laaj ngir mën a wër région yi fu ne mu tiim ko nee na bu noppee incha allah tawati coronavirus dana jóge ci réew mi ci na mu gën a gaawe bu Sénégal bu dee yitteem mooy jële fi eh, coronavirus bi na daal di jokkoo ak Serigne Modou Kara. bëgg mu egg fii ci wax. waaye nag eh, jamono bu nekk ak li war a xew man dama bëggoon lii may wax président Macky bu ci amee lenn lu muy dute samay kilifa ngi fi mu laaj leen xalifa baa nga fee di sëriñ Muntaxa sëriñ Abbas eh, ibnu Cheikh Ibrahima Fati nga fee Daaru Muxti sëriñ Moustapha Hafsa ngi fi sëriñ Moustapha Saliwo ngi fi li may wax ci takkusaani ajjuma ji laa koy wax bu ñu majj avion waxuma sax avion waaye hélicoptère rek ma volore wër région yi région bu nekk ma tiim ko sànni fa la ma fay sànni ci sama remède su ma noppee buñ ci tegee ñetti fan kenn duut fi dégg kaa léegi nag bu ko gëmul ma laaj ñooñu laaj leen ba xam sama mbir luñ ci xam ba xam lan lañ koy wax <laughs> ndem mbir la moo xamante ne bi ñëpp ci war a jàpp ñi ñaan ñi jàng al alquran ñi ngi jàng alquran ñi jàng xasay ñi ngi jàng xasay ku nekk la la yàlla cëreel yaa nga ca man lii ku tedd kii cërale ma ko man cërale ma ko ci Ceerno cërale ma ko ci Noreyni wax dëgg yàlla ma gëm ko teste ko am ci résultat yu leer nañ wax dëgg yàlla mbay ci sa wew tànk xalaat bala ma fiy jógee dem bitim réew mbaa fenn fii <laughs> ñu wane ko fi banaat noppi lii kat la bëgguma woon a egg fii waaye mënu ma fee ñàkk bañ a egg ndax tan xam lu gi dafa metti wala am na ku doon jaay jaawartu di wax laisser passer àjjana am ñaar ñoo xam ni bokkuñ ci yoonu murit bi ñu dajee ak moom kenn ki ni kii day caaxaan moroom ji ni ko naa jënd rek ndax fukki dërëm la wax su fekkee ni dëgg la aljana fukki dërëm yomb na lool bu fekkee du dëgg fukki dërëm bariwul lim liy mbir tey mbir mooy ah dina màtteem du màttee bul ko jox sa loxo la gaa yi wax waaye nag eh, dana joxe xéewal ak du joxe xéewal ah eh, jox ko sa loxo ngir mën a am ci xéewal yi Serigne Modou Kara fas yéene saafara tawati coronavirus mi jombal àdduna bi wërngal kàpp TS TV